bu fekkee dafa ne ekkati naa ñaari million ak genn wala day wax lu ko neex donc loolu amul bien vrai que nag yàgg naa man ak moom depuis xale ñuy ànd liggéey la ñu séq jàmm ak salaam laa doon séq ak moom papa si man yàgg naa ànd ak moom su ma wóolëre la dëgg laa ànd ak moom jub laa ànd ak moom donc bi nga xamante ne Baye Aliou Faye woo naa ko sama papa taxaw ma taxaw ma nekk dañu doon séq xaalis la ko waroon jox jox naa ko lebal naa ko suma xaalis na ko fay nanguwul fay ma ne ko woo naa ko démb mu ma bàyyil ba suuf ma woo ko mu ne ma dama nekk tuur bi ma ko woyatee mu ne ma dama nekk si benn takk su ma génnee naa la woo woowu ma ma toog ba 8 heures ma ne sama papa oyal bàyyi Elie fay parce que am na loo ñu toog ñu waxtaane ko donc mu leer daf ma xaalis dama bëgg mu fay ma ko daf ma doon leb te ma lebee dama kane danga may fay la ñu séxoon si xaalis jox naa ko bu mu jeex takk léegi nag lépp loo xamante ne su ma moom bor la dama ko ko lebal te man dama yor soñci jàmbur xaalis boobu dafa waroon dem si xaalisu fin de soñci donc ma koy laaj mu may daw naan maan tey suba gannaaw suba ba ma ooyee sama papa mu ñëw uyuse paa bi wax que nekk sa digganteeg Modou fay lan mooy problème bi mu nekk amul benn problème mu nekk addit ah, am na problème parce que dama gis ne nee na yow da ko yoral xaalis mu nekk waa Modou day vraiment man bu nee dama ko yoral xaalis sax d'accord dëgg la bien vrai que Modou def na si man lu nekk chantier boobu wax noonu presque moom lim ma si lekk lekk ko si 5 millions donc jox na ma ko si c'est ça léegi retourné na lépp ma suma xale ma taxaw di ko fay ko mu ne du ma fay ma nekk nag léegi comme doo ma fay dama xamul dara ma fas yéene wu fay wala da nga amul intention fay wala nga amul loo fayee bu fekkee amul loo nga bind nga signé nga wax ma kañ nga ma fayee ak noo may fayee mu ne moom bindul signé wul ma jël téléphone am confisqué téye téléphone am bi mu demee noonu ma xëy dem nga gendarmerie ngàpparu expliqué commandant bi mu ne ma waroo confisquer téléphone bi téléphone bi da ngay jël sa papa nga jox ko mu delloo ko ko parce que du noonu léegi bi ma demee sama papa ma expliqué ko léegi sama papa ne ma d' léegi comme noonu la d' accord dégg naa si baax na deux jours après internet bi ñu commencé di ma woo nan ma waa Moodu Faye sa tur bi may gis si bi nag ñu yàq sa der ma nekk ah Baye Aliou de moom laay moo yor suma xaalis ma koy fayeku mook benn xaritam bu ñu naan Zal dëkk Pikine ñëw commencé déjà di ma indil ay problème di ma menacer ba yóbbu suma der internet bien avant avertiroon nañ ma waxoon na ma que ni la première fois ni la deuxième fois donc loolu su amee ñoom ñoo ko bëgg jël ay deri tuuma teg ko su met ne ñaari millions ak genn wàll pour mu tëdd suma jabar te loolu amul wax boobu du wax bu enu maanaam loolu amul aussi dellu gannaaw tamit ne man góor jigéen laa bu dee góor jigéen laa moom moo ma dugal si góor jigéen parce que man ba may xale ba léegi moom laa xam moom lay àndal fu ma dugg fa lay dugg fu ma génn fa lay génn matin soir ñooy ànd fu ñuy dem na na ma xaalis ba ñuy dem voyage Guinée man ak moom deux millions cinq cent ne ma waaye sa waay dama bëgg a changer oto léegi su ma sañoon ko jox ma 2 millions 500 ma nekk yow ñu nekk ma nekk si la noonu nekk bu mel la ma ma non ma satisfaire la ma nekk bu mu ñaar arrêté loolu. est na ma si mbirum góor jigéen mais wuyu ma ko si. woo ma si affaire euh, euh, sacrifier doomam ne day sacrifier benn doomam bu mu jur ma nekk bul def loolu. jullit kër loolu jullit du ko def donc loolu baaxul ma génn ko si loolu ah def na fi ay viol ñaar yoon ma dëgg suma tànk. dox ko lijjanti ko ba mu sedd ñaar ak ñett yëguña jàmm laa séq ak moom bàyyi la si man wóolëre jàmm ak ngor ak jub laa doon ànd moom te loolu leer na nga ngapparu gi ma dëkk yëpp leer na askan bi yëpp kon nag man jomb ma taxaw fii si tali bi leeral nit ñi mu leer seen nopp ñu dégg xam ne lii muy wax nii ay tuuma la ay fen la dara amu si nee na it da nga wala ko sa soxna est-ce que loolu it am na waaw alferu sida bu wax ne dama am ko wàllu ko suma soxna day wax lu ko neex suma soxna dara jotu ko man tami dara jotu ma feebaroon naa affaire rein laa am danteg laa doon dem ñu may suivre donc loolu mooy suma problème mais aw ma beneen feebar su fekkente ne feebar moom kay laa ragal mu feebar parce que toog naa mu ne ma sa waay ah mu ne dama tiit ma nekk si la noonu mu ne ma deux mois nekkuma ak suma jabar ma ne deux mois nekk si mooy problème bi mu ne ah man daal sa waay damay xooy damay jeex rek man ma sax jógal ma nekk ah sa waay li na da ngay jóg ñu dem xooli médecin ñu dem ñu xool qu'est-ce qui se passe réellement mu ne ma no am na ministre may liggéeyal Palmarin am na ku ma booleel dinaa dem ma xool mais daal sa waay mun ma nekk nag da ngay xool fii feebar bu nekk mën nañ ko faj sa waay bu feebar di am bala sida di am moom moo sida moo gën a nuru ko sida mais man dara jotuma na xoolaat boppam ma xoolaat sama boppam ñu xool kan moo sida est-ce que da ngay pour diffamation wala. non naroon naa porter ba ma ñu bëgg ma jox plainte bala convocation ma leen non non te bëgguma affaire bi yegg fenn fi comme mbokk la am na loo xam dama koy suur am na loo xam dama koy éviter am na loo xam dama koy daw moo tax ma reculer woon mais donc ni mu doxale nii doxale na noonu mais man porté ma plainte dinaa taxaw devant télé yi devant askan wi ma leeral xam ne li muy wax nii ay tuuma la porte ko ma plainte mais dinaa taxaw nag à ma position fu ma oo tamit dinaa ko fa uyu bañu ma si dara